fukki million d'euros ak ñaar ak euh, genn wàll loolee di som bu am solo boo xam ni équipe bile di Real Madrid bu fekkente ni am na ndam ci diggante ak Manchester City ngoonuk juróom-ñeenti fan ci weeru avril dana ko yóbbaale fële euh, ca Santiago Bernabéu yu ak cay biroom di alal joo xam ne ju bëree bëri la war a tax gone yi ànd ak Florentino Pérez war a am taxawaay boo xam ni bu ama am solo la som boobee sax jàpp naa ne tamit gëstuwuma ko bu baax a baax waaye moom la man sa Manchester City war a am bu fekkente ni am na ndam ci Real Madrid mu am solo bu baax a baax ci match boobee nga xam ne fi mu toll nii nag adduna walangal kàpp ci semaine bii ñu dugg mooy match bi nga xam ni moom la ci ñëpp gën a xaar donte am na yeneen match yu war a am waaye match bi moo nar a toj dëkk bi ah, ci eh, li nga xam ni daanaka mooy xibaar yi ñu tënk tey xibaar yi bari na ponk yoo xam ne du benn dong dana weesaaroo danañ ko faram-fàcce waaye maa ngi leen di siyaar di leen bëggee di kontaan ci yéen bu baax a baax di leen ñaanal jàmm te naan amin démb ah, ci guddik laylatul xadar gi nga xam ni kenn kom ci man di doon ci yéen Sénégal ba Maroc ba Arabie Saoudi fu mu man di ne manga nga sikkimu ki nga xam ni mooy subhaanahu wa taala di yàlla sunu borom di ko ñaan ay xéewal ci mille réew di ko ñaan ay xéewal ci moom xéewal yooyu ngeen ñaan yal na yàlla defal leen ko ci jàmm ak salaam ñaanal président euh, Diomaye Faye son excellence yàlla defal ko euh, sutura yan bi nga xam ne yenu na ko mu nekk lu oyof ci moom président Ousmane Sonko ñaanal ko jàmm premier ministre bu Sénégal ñaanal président Macky Sall jàmm ak salaam ñaanal leen ko gaay yi Alaaji Malick ci kàddu gi abonnement yow mii di ma door a seetaan dama la koy ñaan dong du force laalal ma abonnement bi ñu continuer dem ci xibaar yi nga xam ni moom lañ bëgg a tafañ tafañee léegi léegi Marca lañ koy commencé nag ci site internet am moom moo nga xam ni daanaka gone Marca yi génn nañ ko njàngat la moo xam ne nag mu am solo la te lu jaar yoon la lu yenu maanaa la mu nekk som bi nga xam ne som bu am doole am doole la ah, bi équipe bi di euh, ci Real Madrid di équipe bi nga xam ni kii di Tchouaméni cubu tooy ah, fa lay football fala kii di ki nga xam ne mooy Tchouaméni cubu tooy di football loole nag nekk match boo xam ne gars yi leen ko promettre xaar leen ko match la boo xam ni bu ama am solo la ci taarixu euh, football fële ca li nga xam ni mooy Santiago Bernabéu match match la boo xam ne tamit bu am solo la euh, ci li nga xam ne mooy Santiago Bernabéu waaye nag fii ñu dem ndànk nag di kii nga xam ne daanaka mooy nekk euh, kii di François Letexier moom mooy arbitré match Real Madrid Manchester City di talaata ci ngoon di match Ligue des Champions nga xam ne match boobee Ah, day am solo bu baax a baax ci li nga xam ne moo nekk taarixu football ndax moom moomee jàpp naa ni sax ci sama xalaatu bopp coow dugg na ko ndax gone Casablanca yi bu ñuy dajoog City seen si match la boo xam ni gars yi coow li amoon ci premier match bi ñu mujj football ah, fële ca Santiago yow gis ngeen ko coowul arbitre yeeg karaj karaj yeeg yooyu kon moom tey ji suñ ko dénkee match bu mel nii daanaka coow topp na ko match boobee nag xam naa ni dana bari ay li nga xam ne mooy ay commentaire dana bari li nga xam ni mooy ay tappale dana bari lépp loo xam ni. jëm na ci xeextu naafeq dañu ko gis sa match boobee match ba sax jàpp naa ne fi mu toll nii su ma neexee sax bala ma xootel xibaar yi ma coppatil leen ndànk benn compo boo xam ne sax compo boobu. mën naa mu neex mën naa mu coqoon mbuuj waaye maanaam en attendant lay door ne bu ko defee ngeen xool ci commentaire yi ndax ànd ngeen man wala ànduwuleen ak man bu dee camp yi du ma fa teg kudul André euh, Luin moom laay teg ci camp yi. kon gardien baa ngoogu su ko defee nag ma dem commencé ko sama gars yi ngeen bàyyi ma xel ndànk-ndànk nag euh, ping pong ma dem ci li nga xam ne mooy défense bi. Eder Militão mu ñëwaat gars yi nag jàpp naa ne fi mu ni nii coow li doon na bari ay ñoom na o coog Tchouaméni euh, Couboutoy waaye na classe bi ma classement bi nga xam ne tegal naa leen ko ci taabal ji loolu kii di Eder Militão laay booleeg Rudiger maanaam ñu ne ci axe central bi côté bi nag Fernand Mendy fi mu toll nii intouchable moom it ma bàyyi ko ci li nga xam ne mooy laafum càmmoñ bi laafum dijoor bi nag ma bàyyi fa màgget gi di xaal ndax dendee nag ñetti gone yoo xam ne ci défense bi manees na koo dimbale bu baax a baax Eder Militano gone la Rudiger gone la Ferland Mendy gone la kon daanaka maanaam foofee dana man lu màgget màgget dana war a mën a góorgóorlu su ma demee ci digg terrain bi nag benn paa laa fay teg muy Toni Kroos boole kook ci bu ci waa Mendy mu nekk ci ginnaawam bu fekkente ni daal tërëf mu daal di koy régler situation yi kii di Fede Valverde nag ci laafum ndijoor mi ci li nga xam ni daanaka moo nekk milieu terrain bi foofu laa koy sànni bu ma demee ca kaw ma sànni fa Bellingham mu jiital Vinicius Junior Rodrigo gars yi attaque boobu laa leen ci taabal ji loolee nag da ngeen xool ba xam ànd ngeen ceeg man bu fekkente ne am nga ku ngeen mën a roppi mën ngeen ko roppi ndànk ci commentaire ndax loolee ah, duma ko bañ ndax daanaka xalaat rek laa joxe bu ma jàpp ni xalaat la bu ama am solo ci li nga xam ne daanaka mooy bile ah, match bu am solo solo solo ci li nga xam ne mooy pra ba tey ma nga noonee di li nga xam ne daanaka lu ama am solo ci eh, coupe bi nga xam ni eh, démb nag gone athlétique yi maanaam am nañ ko mu nekk coupe boo xam ne daanaka bu am solo la communiqué sax boobee nga xam ne sax gone Real Madrid di génn nañ ko en l'occurrence di Florentino Pérez di euh, félicité Athletic Club bi nga xam ni daanaka rek gis nañ ni victoire la boo xam ni bu ama am solo bu gone yi am victoire baa ngoog ngeen gis ko gone yi ñu ngi gundaandaat di wane seen mbégte ak seen xol bu sedd guy gi am démb ca dénduk Espagne ndax lii nag yaakaar naa ni bu njëkk da ngeen doon gis Atlético di ko jël wala Real di ko jël wala Barcelone tey jii nag équipe bu doon jàmbaar équipe bu xam fi mi taxaw xam fi mi teg tànkam moom moo moom it daanaka moo teg ci taabal ji ah, bile ah, coupe nekk loo xam ni lu ama am solo la vainqueur sax ma jàpp ni ah, lile di Mallorca euh, bi nga xam ni daanaka fi mu toll nii daa mel ni ko exante championnat Espagne bi nag ñoom Barcelona ñoom ñëpp nag mën leen cee xaar waaye képp ku ci jël championnat bi ci jamonoy eh, janvier deux mille vingt cinq bi di nga mën a am ci demi-finale super coupe d'Espagne ki nga xam ni moo nekk Real Mallorca. loolee nag euh, nekk loo xam ni lu ama am solo la kon gars yi championnat bi ku ko jël da nga bari ay match yoo xam ni yu ñu war a football la yu bëree bari kon nañuy xaar championnat bi nag ba xam fu wànnenti di mujjee kii gëtëm beneen information boo xam ne sax danañ ko andi ci li nga xam ne daanaka muy euh, xibaar yi di tef bii xam ne nag yaakaar naa ne yéen ñëpp xam ngeen ko. di gën a ndaw goo xam ne fi mu toll nii nag am na ay mbiram lu ci yees waaye loolee dañ koy jéggal. ba xibaaru digg ba xibaaru digg ba cëggi ndax tey ji yaakaar naa ni xibaar yi dafa xaw xat waaye nag kii moom kenn mënu koo bañ a jeexaleeg li nga xam ne mooy xibaar yi mu nekk nag international boo xam ne ab espagnol la waaye nag yow mii di ma seetaan xam nga ni fii mu taxaw ci àdduna wala ngal bokk na ci entraîneur yi nga xam ni buñ doon wax meilleur entraîneur du monde actuellement ci wàllu club moom moom mi amul kenn koo xam ne dana ko ko xëccoo moom nag mi ngi tudd Xabi Alonso maa ngi wax ak gone yi nga xam ni yaakaar noonu ni xamuñu ay jamonoom ba muy nekk ca Bayern Munich ci digg terrain bi di ko jaxase xamunu ay jamonoom jamono yi muy nekk fële ca Real Madrid terrain bi di ko jaxase ay jamonoom jamono yi muy nekk Liverpool bu Sadio maane ancien inter ancien kilo bu Sadio maane di ko jaxase kon kii daanaka taarixu football manees na la wax ci moom lu bari te ñi ngi wax ak ñi nga xam ni jamono jooju xamunu woon loolu wala fekkewuñ ko wala boo xamunu woon football lu bari kon tey jii na ngeen xam ni foofee fépp moom gone gi jaar na fa ci taxawaayam boo xam ne daanaka dëgër këcc ci pied bu baaxam nag moo nekk pied droit moom mi nag kon bu tolloo ci football ci fi nga xam ne daanaka ay match yu mu jël di ko rappelé di ci am ay ndam lu yaato yaat tey daanaka lile di championnat d'Allemagne bu ma juumul équipe bi bu fekkente ne mus na koo jël booba maanaam ñu bari bay bàyyiwuñ ko xel tey ji nag yaakaar naa ne taxaw na temm pour yanu lile di maanaam championnat d'Allemagne moom Bayer na liver Leverkusen ndax démb maa ngi leen ko doon wax am na match bu mu gagné ci digganteem ak Union Berlin maanaam dañ leen a benn ba ca kaw daal di leen sànni kon loolee ñu mën koo bàyyi xel ñaanal Xabi Alonso yàlla defal ko jàmm ak sutura lii mu dëgmal yàlla defal ko si tawfeex